salaamaaleykum alaikum, mbokku journaliste journalistes. silence. Nous suis gërëm journaliste répondre ci invitation passée. silence on tourne. journalistes journaliste presse nationale comme presse internationale ñi nga xam ne président Ousmane Sonko bi muy visiter. Euh, Kër Massar li nga xam ne nii mbënn mi da laal donc ginnaaw visite boobu nga xam ne président Ousmane Sonko dafa demoon pour nemmeeku ñi nga xam ne nii mbënn mi da leen a laal euh, nemmeeku leen ba pare naqaarlu li leen dal bokk ak ñoom seen naqaar oh. bokk ak ñoom seen naqaar donc conférence de presse bi day démarrer président Sonko la ñuy jox parole mu wax ak askan wi bu ñu paree ci loolu journaliste yi dinañ leen may ngeen poser ay questions donc euh, pour démarrer président Sonko ñu ngi lay jox kàddu bi. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm. Euh, nuyu Sénégalais yi ñuy déglu yëpp ci jamono ji ak ñi nga xam ne peut nañu dabu plus tard parce que mën nañu ko suivre direct di nuyu la presse bi fi teew rawatina ñi nga xam ne ñoo bokkoon matinée bi ci mario bi ak ci ndox mi di nuyu kilifa yi ci réew mi yëpp muy kilifa diine di kilifa aada di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte dajewaat ak Sénégalais yi pour waxtaan ndax toogoon nañu ab diir boo xam ne gën caa gàtt ñetti weer defe naa euh, ñu fas yéene waxtaane mooy situation réew mi réew mi nag lépp xajul ci benn conférence de presse waaye ñaari yu mel ni bu amee dina am bu ci gën a fës loo xam ne mooy doon cëslaay waxtaan oh. taxul nag leneen ak leneen mën cee xaj li gën a fës sa xew ci jamono jii mooy mbënn mi inondation yi nga xam ne tey dellu si na ci réew mi waaye daanaka sax daf fee mosut a jóge dinañ ci dellu si te ma ngay gàllankoor lenn ci suñuy concitoyens ndax suba si def nañu bisit de terrain waaye loolu benn étape la woon rek ci li ñu fas yéene def mooy fexe ba nekk ci côté askan wi yoruñu milliards yi état yor askan wi jox ko ko pour mu defaral leen waaye am nañu suñu yéene am nañu suñu gis-gis am nañu suñu xalaat ak lu tuuti lu ñu mën a bokk ak askan wi naam du ñu mën a dem fépp ndax mbir mi fi mu laal bëri na waaye nañu fexe ba suñu tànk tegu bëri ñu ñëw apporter suñu réconfort population yi fay fekk di gërëm di remercier population yi ñu fekki woon tey ci tertu bi ñu tertu doonte sax ñi ngi ci ay jafe-jafe waaye euh, def nañu li africain xam di sénégalais xam mooy ñun ñu bàyyi suñu yitte dem ba ci ñoom teeru nañ ñu ak teranga fi mu mën a yem par rapport ak seen contexte bi euh, ñuy doore di jaale ñi nga xam ne famille ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi ndax su ma jumul ci lim wax nañ nu mu tuuti tuuti lu mat juróom benn nit yoo xam ne seen bakkan rot na ci mbënd wi ci ay accident yu am donc ñu ngi leen di jaale seen i waa ñaan yàlla mu yërëm leen jéggal leen te xaare leen àjjana ñi nga xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ñu ngi ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ba ñu mun a dellu seeni yitte ci lu gën a gaaw fa ñu demoon tey nag lañ fa gis jéggi na dayoo doy na waar dafa am loo xam ne ku mu mënul tooyal sa xol rek jàpp naa ni war nañoo xoolaat ndax normal ma jàpp nag nit ñi jiite réew mi tey te Macky Sall jiitu ci ñëpp lii dafa tooyalul seen xol. dañoo ñàkk yërmande ci askan wi te dinaa ko développé li tax ma wax ko fa ñu dem fekk nañ fa ay kër yu bëree bëree bëri yoo xam ne tey ndox mi nangu na fekk nañ fa ay nit ñoo xam ne dañuy xuus ci ndox mi bés bu ne léeg mu ñëw ba ci seen seen seen seen ndigg pour mun a génn seen kër dem ci boutique jënd li ñu war a soxla parce que mënuñoo génn seen kër dem feneen wala amuñu feneen fekk nañ fa ñoo xam ne ay gaal yu ndaw mel ni ku nekk ci dex ay gaal yu ndaw la ay volontaire jël moom la ñuy euh, euh, doxee ci biir ndox mi pour mën di leen jëli di leen génne di leen delloo fekk nañ fay ay gone yu ndaw ay tuut tànk yoo xam ne ci biir ndox mi la ñuy doxee seeni soxla wala seeni soxla waajur dem ci boutique yi jëndi gaz wala jëndi ceeb wala leneen ak leneen leneen loolu nag lu jéggi dayalo ci senegal gi ñu ne ci jamono ji ñu ne ci vingt et unième siècle ñu leen di massaw ñoom ñëpp ñi nekk ñëpp ci mbënd ñu ngi leen di massaw di ñaan yàlla parce que léeg situation day am fu muy toll day mel ni talal suñu loxo moo fi des su dee ñi waroon a def té ñu fal leen pour ñu def jox leen ay moyens pour ñu def ñu annoncer xaalis bu dul jeex bu ñewon ca lañ koy def su dee ñooñu defuñu situation urgence taxaw dellu tàllalaat suñu loxo ñaan yalla mu sutural leen jappalé leen waye nak am nañ ci xel ñaar ni waral lolu moy ñëpp xam nañ ni nawetu ren du nawet bu ndaw te lii ma gis nii su ma dégloo rek ñi nga xam ne seen xam-xam da cee màcc dañu yoon xarale yi la wax mooy ñun ñëpp war nañoo waajal yeneen taw yu ñëw dafa mel ni sax nawet gi day door ci presqu'île bi Cap-Vert kon loolu dina andi njàqare tuuti ba nga xam ni dinañu am inquiétude ci li war a ñëw ëllëg te kenn sañu amul sañ-sañ taxaw tàllal loxoom ne yàlla bul taw ndax taw git ni mu mënee am lorange noonu la amee njëriñ te jàpp naa ni njëriñ gi moo ëpp ndax dañoo soxla taw pour gàncax gi dañoo soxla taw pour mbay mi dañoo soxla soxla taw pour jur gi kon taw njëriñ gi alaa kulli moo ëpp lorange bi ñuy lancer un appel nag à la solidarité nationale parce que ni ma koy waxoon fii ci salle bi ci jamono corona boo demee ba am état bu démissionné état bu tële la ca des mooy askan wi essayer jël responsabilité loolu nag dàqantewul ak obligation bi nga xam ne ñun ñëpp am nañ ko askan wi ñii nga xam ne ñoo jiitu te ñu jiital leen ñu leen di réclamer des comptes parce que lu ko moy rek day doy waay day doy war dafay yomb kon ñu ngi lancé un appel à la solidarité nationale mooy ñëpp kenn ku ne loo mën bu ko xeeb moo xam ay mbàjj yoo moo xam ay yére yoo moo xam sa 1000 francs boo ci mën a dugal ba ci mën a dugal ay milliards moo xamit it sa doole bi nga yor. gis ñuy liggéey loo xam ne luy évacuer ndox la nga dem jàpp ci bu ci kenn xeeb moromam wala moo xam it am nga place sa kër wala am nga kër goo utiliser wul soo ci mënee fat ay nit yu ko soxla te loolu bëri na ci réew mi rawatina ñi yàlla war sa kër tuuti alal muy vrai plan parce que jàpp naa ni nguur gii nguuru Macky Sall gii bu dee am na lu bëri lu ci askan bi xaar rek doon nañ seen bopp ci yëpp Macky dafa yoratul réew mi gouverner ko lépp a ko dépassé te naa ci ñëw di lancé appel particulièrement nag ak ñi nga xam ne suñu njaboot lañu mooy les militants et les militantes de Pastef gannaaw appel général bi nga xam ne ñëpp laa ko lancé dafa am benn pacte boo xam ne ñun moom la ñu essayé euh, euh, laal suñu diggante ak suñuy militant mooy ñun ñëwuñu politique pour euh, xëccoo alal réew mi wala pàccoo alal réew mi dañoo ñëw ak conscience citoyenne ak patriotique mooy ñun ñoo war a defal suñu réew mi waaye xaaruñu lu réew mi di def pour ñun pacte boobu nag ndaw ñi topp ñu ci bu baax a baax a baax

noonee laa leen di woowaat tey lancer leen un appel ne ce sens du sacrifice le don de soi pour la patrie nga xam ne mooy suñu devise parti na ngeen ko wane ci mbënd mi mooy na ngeen nekk auprès des populations jàppale leen ci seen kéem kàttan mbokk yi nag bu loolu weesoo di woon suñu introduction ñu ñëw ci fulla waxtaan gi ndax damaa jàpp ni li xew démb ci guddi cinéma la woon mooy yéen ñëpp gis ngeen Macky Sall ñëw taxaw ah, wax ay waxtaanam nee na changement climatique moo andi lii man damay toog ba si yàgg ma ne Macky dafa nawul askan bi mu jiite.

ñoom ñëpp ci pasar pasare alal réew mi dagg ay terrain yu mel ni ñu ngi ci aéroport bi nañ ci ñëw ci beneen affaire dagg ay terrain jaay jaay pétrole jaay zircon jaay gaz jaay suuf senegal jaay euh, euh, euh, géej gi daal ci yor seen i milliards yi milliards bu ñu sàggat bu ñu seetaanee nag ba musiba ñëw mu njëkk a yebal jabar ja ne ko demal moom mooy distributeur distributrice automatique de de billets

incapacité manque d'amour pour la patrie yoyep boko dajale mo andi li ma faram-fàcce ci ñaari patch bu ci njëkk moy dinañu joxe ay chiffres ak ay faits yu concret yu woné ni Macky Sall dafa wor askan wi te li diglanté ñom def ko ndax bi mbënd bi 2012 boobu mom ci doog a vous y annoncé un programme qui est 750 milliards voilà 767 milliards voilà 745 milliards selon les différents documents Vous du gën avez 750 milliards ñu annoncé ko dit. ñu dox tout dit def y mi de mu koy bàkkoo ba yóbbu ko argument campagne électorale ne ci ñeenti at laa réglé problème mbënd fekk boobu jamono réglé wul tous li indi woon mbir mi mooy dañoo newoon ci cycle parce que mbirum taw ay cycle la ñi nga xam ne ñu ngi seen xam-xam màcc na ci loolu xam nañ ni mbirum taw ay cycle la mun a nekk cycle 10 ans mun a nekk cycle bu gën a gàtt mun a nekk bu gën a gudd waaye ñëpp xam nañ ñi taw dina am ay cycle yoo xam ne taw bu fort la bu dajaloo. mu am ay cycle yoo xam ne taw bi dafay xaw a néew doole at yi ñu jóge nag cycle pluviométrie bu faible la ñu nekkoon kenn newul nag defuñu dara dama bëgg mu leer am na lu ñu jot a def te loolu am na lu mu wàññi ci mbir mi waaye lii problème bi mooy li ñu diggoon Sénégalais dañ koy def defuñu le dixième loolay problème bi ma koy findeel ci lu leer. Nous avons ñom programme décennal d'investissement prioritaire 2012 2022 Nous avons fait conseil des ministres en 2012 ba génné programme bi dañu waxo ni programme bi dañ ko wara exécuter pour inondation waxuma la jeex ci Dakar waye jeex ci Sénégal ñu def ko ci ay Patch patch yi ñett la won bu ci plan d'urgence avons un plan d'urgence 2012 2013 plan d'urgence urgence mo moo régler problème yépp motax tax bu ñu ba 2020 demb ci goudi Macky Sall def discours nan programme d'urgence. urgence loolu lajina 2012 nga def plan d'urgence. plan d'urgence nous dañ 69,6 69,6 milliards Nous ci def 69,6 milliards ñu né ensuite deuxième partie bi le programme à court terme nous avons 339,6 milliards de pour nous bu ñu de nous nous un programme à moyen et long terme Nous avons deux phases 2017 2019 2019 2022 Nous avons 336,6 milliards Nous avons beaucoup ko nous avons 767 milliards 800 millions Et que euh, volet administratif yenn yi ñu

750 milliards il faut nous wax leen 700 milliards 750 milliards yi nous nous avons lu ci nous ci wax dans nous wax 700 767 milliards nous ñu waxoon nous boo ko ba ci biir effectivement parce que organisme doit doon réaliser programme ONAS moo ci ëppale woon waaye am na ku ñuy wax projet am na ñeneen ñu ndaw ndawaan ñoo xam ne SONES sax amoon na ci parce que ay volet la waaye ONAS moomu ëppale ci moom parteem ci document yi ñu jot a am ñun 285 milliards ak lu teg waroon na ko nekk waaye ONAS nee na moom ci jamono ji ñu toll c'est-à-dire après 9 ans d'exécution ONAS nee na moom quarante milliards la réalisé 48 milliards nous mobiliser effectivement mobiliser sur les 700 et quelques milliards pour le moment qui la gëstu ak document 48 milliards nous avons am ni exécuté 48 milliards sur 700 et quelques milliards c'est même pas 6 d'exécution même pas 6 d'exécution la Cades nous avons 15 milliards de dollars qui ci zone bi en cours ñu ngi koy essayer mobiliser Nous avons 117 milliards de dollars ne lu ñu cours. Nous avons la lu ñu war a jéggaane ji la ndax yoraguñu nous dama bëgg ñu avons te bu baax 765 milliards de ak 48 milliards fi ñu daanu ji gannaaw 9 ans kon nous avons un problème bu bruit,

amul ci benn boo xam ne mun nañ wax ba lan moo ci programme Macky Sall ak lan lañ ci def loo xam ne lu am fulla la kon li ma bëgg a wax foofu mooy Macky Sall dafa musut jël mbirum inondation def ko fulla bañ a commencé ci mbir mi am ñu gaawantu euh, euh, euh, fatt fii fatt fële yàlla def ak ci tegu amul pluviométrie bi fa cara cara xasoo ba set moo tax suñu toogee mu jekki jékki mel ni ku ko man su ma gisee nos amis journalistes titré Macky Sall pique une colère noire ndax damay reetal ba bëgg a dee ban colère moom xam na ni defu ci xaalis xam na ni ñu ci waroon def defuñu ko ci ban résultat la mun am mun am benn résultat te président boo xam ne lu ñu wax ñu ne yéeguloo moom xam naa ni gëm naa ni sax moom yéegul ni mooy président lu ñu wax ñe Macky Sall yéeguloo il pique une colère noire il n'était pas informé lépp yëg na ko nag amul lu ko ump parce que amul document bu mu validé wul bu ne egsiwul ci table problème bi kay mooy li ñu war a laaj mooy li askan war laaj Macky Sall mooy lan moo tax lii farata ci réew mi mu ne ko fi ñukk ba ko dem topp ay mbir yo xamne du benn farata ci rew parce que 2014 bi mu commencé 2012 2014 la ko nit ñi ne a commencé par ñi koy lebal xaalis parce que ñi koy lebal xaalis wolof dafa ne ki laa bari gët moo lay joxañ fooy xool ñi koy lebal xaalis ñoo koy wax fan la investir te ñooñu di ko lebal xaalis santé publique du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux éducation nationale du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux enseignement supérieur du c'est pas rentable pour eux du seen priorité assainissement du seen priorité c'est pas rentable xam nga ñooñu lan moy sen priorité.

ñooñu yooyu mooy seen priorité mooy defaral ab terre boo xam ne bi mu commencé ba léegi moom ñuy bëgg a rek te loolu samay collaborateur nañ ci dellu si ndax terre bi newoon naa fi ëpp na 1500 1500 milliards ñu ngi yokk rek barki démb dem na Paris waxul inondation waxul éducation nationale waaye nee na 17 milliards la uti woon pour terre bi ci tronçon boo xam ne fi amoon nañu financement ba noppi mu ñëwaat ne 17 milliards arnaque bi ne ci terre bi kenn xamul nu mais yooyu ñam euh, ñoom Bassirou Diomaye ñoom Birame Souleye ñoom Abbas ak yooyu lañ ci ñëw ci beneen waxtaan ak suñu mbokk journaliste kon Macky Sall dafa dafa jël ay priorité yoo xam ne du priorité sénégalais yi du priorité citoyen sénégalais bi nga xam ne moom am xëy moo ko tax a jóg moom la tal faju la tal lekk ba suur la tal jàng bu baax la tal dëkk foo xam ne du taa la tal am courant bu doy te bañ a coupé te bañ a cher

Macky Sall moom la suul dab jam ñaar Macky Sall moom la yóbbu ci train bi Sall moom la yóbbu ci euh, autoroute yi moom la yóbbu feneen ak feneen daal di sàggane askan bi mois de juin lu ëpp 200 maisons euh, taw bi yóbbu na ko nit ñaa ngi ci biti am na quartier yoo xam ne entier foo demee fu mel ni Ziguinchor ay Goudomp ay Kanjala Kenya fu bëri dafa taa ak yeneen région yu yu am problème yooyu tudd leen sax.

liñ ci jot a def il faut ñu wax ñu fan lañ ko dugal parce que milliards gis nga Sénégal dañ dem ba léegi dañu miis milliards defe naa vingt dernières années dañu jékki-jékki rek wax ji léegi li gars yi naan unité monétaire c'est le milliard. maanaam diw jël na milliard diw daal daal daal na si milliard.